Wow, halo mamita sawa naga def yang isi si Holal xoolal dumbe dafa dem marché quoi motax ma profito di lawo. ce soir dina fa ñew ay 21h man ak xaali ah waa moo suluxu tey couvre fa dafa am à 20h de est ce que do bay ba semaine prochaine nga ñew? non non Xana da nga fàtte je suis un ancien combattant man boy police yu bees dañu ma respecté de ñaari loxol lañu ñu may nuyoo waa kon baxna dina la xaar ok mamita te bul ginarnak, ginaar nag ginaar daf ma génnaliku togal domada waaw domada la nam quoi laji suluxu sank ba tay ñogi dox dajawu ñop nit koppar fa bi dafa melni ni la dee du wax ko parfa couvre feu la ñi wax t'inquiète pas amul ben problème dina ko gérer je suis un ancien combattant yow tamit booy policier yi xam ma bu baax. hey booy taxaw leen yéen xanaa xamoo leen couvre-feu dafa tey. Hey, Conan boy yow je suis un ancien combattant hein? respect. ayca góor gi tur bi nan la noo tudd. waaye noppil mu naan noo tudd yow est ce que xam nga ki ngay waxal je suis ton supérieur ah. ah dox sa tur brigadier jox ko benn. oui sama ndey dee naa je m' appelle El Hadj Sulukhu né vers 1950 dans la banlieue de Dakar. mon commandant wax la sama tur. nangul xiir bi ci brigadier brigadier dafa soxor. brigadier jox ko benn. wuy sama ndeyooy. laaj sulubu. xale yi kuur. ñii dañoo namm ay dóor ku ñu rey la ñu bëgg. hey hey hey taxaw leen taxaw leen. dawal way sa xelu bakkan ñi buñ lay japp di la xali nañu tas jaral gus ma jaar droite Allez, fais demi-tour. Tournez, le gars, il est mais les gars ils sont kojaa ils sont partout dans les rues de Dakar. Khali, on est mort c'est fini t'as rien ñu dire. ayca <laughs> Nagao, allez-y 300 301 302 303 304 305 Allez-y, répétez, Nagao. Je vais respecter le couvre-feu. Je vais respecter le couvre-feu. Je vais respecter le couvre-feu. Je vais respecter le coparfeu. Je vais respecter le coparfeu. Je vais respecter le coparfeu. Wa mo commandant dimbali ñu sonn nañu de ñun ay kilifa lañu. kilifa nga kon lu tax ngay dox ba heure bi sama jabar mo febar, mo ngi hôpital mom seti. doon séti. mais man loolu xawmako won ko woon gi su ma xamoon soxna dafa je l'ai pas retenu ici. allez jóg dem leen. brigadier gungé dedet dedet Nono mo commandant brigadier bu muñu gungé gunge xam nañu yoon bi brigadier dafa soxor <laughs> mais xali police yi torturé nañ ñu de ñi bu ñu bayé ni dañ yomb de ñu roubé leen taxawal eh eh eh, eh mo commandant eh yaa may dégg dama la doon nax sama jabar feebarul dé sama cuk si laa demoon sama futur ñaarel mamita Wala je suluhu yow lu la dal yow brigadier wulli la ba nga kan noy amoo jom taksi xaali gis nga borom taxi bi kii fu mu taksi kii de tey yi ko borom taxi nga de tournel hey borom taxi arrête toi brigadier jàppal waaye xaali borom taxi bi gaaw na de kii xanaa nijaay ame mbàkke caam la Eh brigadier bul ñu apa de ñun ñam nañ ba pare man la sama jabar fever. brigadier ci fay nga ñu ba pare de waa nijaay yow ba nga ñëwee ba tey yaa ngi diw sa yaram bi karité mbaa jàmm la yow démb si guddi sax dangaa guddee ñëw te yow sax guddi gi ko onk yow yi ma gis bi rek kan man da xana xamoo couvre feu dafa kan am tay brigadier jox ko ben wey sama nday dee wey sama nday yoy non non ndombe xana da nga faté sa jëkkeur ci un ancien combattant demb dama jóge kër xali ay bor yi 21h yoyu dama ñëw ba ci bop kon bi laa dajeek oto policier ñu arrêté ma ci jam ay yow de segam guerre mondiale 14 18 nga toj ay couvre-feu yi jaxalu la ba defo len dara rek ni jay yow da nga soxoroon de ba ngay nek colonel ay tan yooyu ya soxoroon voilà yow ya ma xam nak ndumbe dama daje ak ñom rek commandant bi ne votre nom maniko je m'appelle aladji Suluxu ndjay ancien combattant matricule 259 F10 30 rek commandant bi tojel ma ne mes respect colonel ma ni ko repos ay suluxu demeewul noonu de <laughs> man kay xamoon naa ne commandant a su la gisee dalay maaja ndax yaay eh, seefam mais bien sûr ndumbe après nag si laa ànd ak ñoom dem patrouille parce que ñoom bëriwuñu woon quoi j'ai été obligé ma diriger leen jox leen ay tactique de jeu cak cak cak cak cak jàngal leen nu ñuy kojee sénégalais yu dëgër bopp nga xam ne respecté wuñu couvre feu bi nañ lu be gaawal sa reer bi nag gaawal sa supp bi mën naan si ñax bi hee hee nijaay ma de dama fàtte jënd pompiteer te huit heures passé na nga ni mais ndumbe ko bu amul pompiteer nekkatul supu, yow ya ma jël samay ñenti junni dem seeraas jënd sama yeelu mbote nga bëgg ma sama supu? Ani ah, nijaay nak loolu problème demal rek ci boutique bi jëndal ma pompiteer policier yi say booy lañ. non non policier sénégalais wax ñoo ma xam ñooñ ñooy samay booy ñoom ñoo monté démb mais tey dégg naa policier ñett yi ñooy monté. dans les rues de Dakar. doore yu métti yi gis ci whatsapp bi ak ci facebook bi du ay policier sénégal de ay policier burkina faso yeen la ak ay policier togolais yeen ñoo ñu biir Dakar ci couvre-feu bi. nijaay nag ancien combattant nga polisiyee say boy lañ demal rek jëndal ma pomme terre mo gën ma yoni malik ni ñukoy do dóor. Lubé fii du fi gënë dé togal supp bi nonu sa pomme terre bu la nexé sax nga transformer ko mu nekk suppu kanja yaay choisir. ñu tambali xibaar yi ak febar bu bon bi di lëmbee aduna muy coronavirus ci tay reyna lu jégué juróom ben junni nit. ca Italie ak France kese fii ci Sénégal laal na lu ëpp juróom benn fukki nit ñu am si ñett yoo xam ne kenn xamul fu ñu jotee feebar bi muy lu doy waar di firndeel ne feebar baa ngi ci dëkk bi di tàmbaambaalu ii feebar buy wàlle am ñu ko am ci biir Sénégal di dox moom te yëguñu ko xaaral ma jug woowi sama doom si mbedd bi Alaaji Suluxu xanaa demoo ci takku doomu góor gi Assane gii e eh, noppil mu ma ay takk xanaa déggoo coronavirus dugg na ci réew mi feebar bangi ray rey nit ñi ci aduna bi président nee na ku nekk tok kërëm tere na rassemblement yépp ñun nak Sénégal dañoo dëgër bop waye buñu ñu xamoon li ñuy yoot buñu xaar président dañu wax tok leen seen kër ñoy togal suñu bop suñu kër gis nga bi ay junni jooni la fay ray par bis commencement bi ñu leen ko doon soofantalee mo leen yobé li leen dal sulu hu bul ma tiital way man dama fogon ni feebar du japp nit ku ñuul walé gi lolu mom lu ci pexé ku nekk tok sa kër xaalis ñu arrêté dajaloo yi parce que loolu moo gën a gaaw ci tasaare feebar bi ci réew mi te ñuy raxas suñuy loxo fu ñu toll sooy sëkkat nga jël sa musuwaar teg ko sa bakkan ak sa gémmiñ soo paree sànni ko mbalit soo ko amul sa loxo def nii <laughs> te ku ci am ci benn ci màndarga yi ñuy wax ci feebar bi nga bañ a jege seen njaboot wala sa waa kër di leen wàllu feebar bi nga woote ci numéro yi nga xam ne moom lañ leen di jox dinañ ñëw ba sa kër jël si la yóbbu la te ñun kilifa yi ñu xool xale yi nañu tey njaboot ci biir kër yi te nga toog sa kër xaali feebar bi doxul de mais sa genre ñoo koy tasaare ci biir réew mi parce que bis bu ne ñu dugg fa kër gu ne ñu dugg fa ak sa bopp bu gàtt bi toogal sa kër xaali mieux vaut prévenir que guérir. mbokki senegal feebar bii di coronavirus yegsi na ci réew mi nañu fagaru balaa li dal yeneen réew yi di ñu dal.